passe Nous, en début d'année, il y a donc une rencontre au niveau départemental, le CDD, qui définit les, le quota pour chaque localité. Et chaque localité doit voir au niveau de sa localité comment ça va se passer. Si c'est au niveau des communes, nous, nous travaillons avec les délégués de quartiers. C'est au niveau des délégués des quartiers, des délégués de quartiers qui regardent au niveau de leur quartier les paysans et on leur demande ça réellement aux paysans. Donc c'est ce que nous voulons. Après, nous, individuellement, on ne donne pas, mais c'est le délégué de quartier qui donne aux paysans la rachète que nous recevons. C'est dans une commission que nous sommes. J'ai entendu beaucoup de personnes qui disent qu'on n'est pas en train de donner les semences aux personnes euh, ayant droit. Ça, moi, je ne peux pas le dire. Parce que si on, comme délégué de quartier me dit que tel est paysan, moi, je le considère comme paysage ça preuve le contraire. Donc, euh, jusqu'à présent, je n'ai pas dit qu'on prend les masques qu'ils vendent ailleurs. Ça, je ne peux pas le dire. Ce que je peux dire, c'est que moi, je donne ça aux, paysans, aux, aux délégués de quartier qui donnent ça aux paysans. Mais en tant que président, vous êtes aussi de la localité. Est-ce que vous n'avez pas un droit de regard sur ça en disant que peut-être telle personne n'est pas n'est pas habilité à avoir des semences. Chaque fois que je dois le dire, je le dis. quand je ne peux pas certifier que tel n'est pas un paysan, je ne peux pas le dire que celui-là n'est pas un paysan. Mais le délégué de quartier, qui est dans le quartier, qui est le responsable du quartier, connaît mieux que moi les paysans. Donc c'est lui qui dit que tel est paysan ou il n'est pas paysan. Donc pour moi, jusqu'à preuve du contraire, les paysans reçoivent les

la commission est composée ma dafa ànd ñoom ñu ci nekk mooy délégué de yi ñoom la ñuy liggéeyal directement parce que nag euh, ngaay rëy na ay boo xam ne nii man en tant que personne ou bien la commission bi fi nekk nii mën nañoo xam exactement ñan ñooy nekk kii mën nañoo yaakaar rek quoi mais délégué de quartier bi xam ne ni moo dëkk ci quartier bi xam li ci quartier bi moom la ñuy dajeel wax leen li leen wax li c'est simple ñu ngi leen di jox gerte gii du pour lenn. pour jiwu la yéen ñi koy jox na ngeen ko jox ñiy bay ñoom ñu bay ko mais nag mënuñu daw topp ci ginnaaw nit ki ba ca ginnaaw ci beneen bi li ma waxuloon sax ci ci ci tubaab euh, commission bi la gendarmerie da ciy nekk da cee bokk ñun tey dañ leen di rendre compte régulièrement dañuy xam di leen wax ñuy fuñ toll ñoom aussi bu ñu gisee kuy jaay ñoom it moo intervenir moom servir amul benn problème maintenant comme kenn nag gisuñu ko ci ñoom te waxuñu gis neen ko ñun mën ñu see jàpp mais nag paysan commerce euh, délégué de bi moom mooy indi paysan yi ñun ñu jox leen gerte gi. am na ñu ne euh, ñi ñuy jox daal ñu bëri duñu ay euh, baykat yow mi nga xam ne yaa jiite commission bi te dëkk fii ci Ngaye est-ce que léeg-léeg amoo ci gis-gis boo gisee koo xam ne waru koo am. waaw su ma tey jii moo giseen kenn ko xaama ne kii waru ko am dinaa woo délégué de quartier bi ni ko kii waru ko mais nag loolu lu jafe lay doon ci man. parce que man du ma délégué de quartier bi dëkkuma ak ñëpp dëkkuma ak ñëpp ñi ma dëkkal xam naa leen dina leen wax mais délégué de quartier dina leen moom la ñuy wax wax ju leer nañ dinañ leen parce que affaire dafa am suivi ah. même au niveau national gars yi dañuy toppat affaire bi fii nii gendarmerie mi ngi ci donc nit ñaa ngi suivre. Euh, jox leen ko gerte gi ku ko jël jaayi ko mais di nga antas ak ñee ñu dul man di nga taseeg euh, ñii xam ne nii ñoo ngi kii dëkk bi ñoom dinañ wax lañ ci war a wax man mënuma koo wax man daal jaayu ma jaayluwuma joxal kii bay kii bay maintenant dem moo xam bu ko joxee kuréel bay kuréel bay su ma ko jàppee moom aussi il va répondre le délégué de quartier va répondre day tontu. ndax man joxuma ko pour mu jox ko kuy jaay. Euh, am na ñu ma dégg léegi tamit ñu naan euh, jiw bi day gerte gi bëri na ay saax bëri euh, gerte gi daal du qualité bu baax. waa qualité bu baax de moom gerte gi daal ñun gerte yi la naan jot nañ ko joxe nañ jox nañ ko joxe nañ hmm. loolu daal lañ ci mën a wax. Hmm. voilà. ah déet gerte gi yow gis nga qualité bi noo ko. jàng bi nga gis moom euh, gerte parce que gerte yi nag ay ay spécialité la. Hmm. depuis R1 R2 ak yooyu yëpp. mais fi ñu wax daal R2 la li ñu jox ñun daal moom daan am moom lañ joxe daan joxe tey moom lañ joxe wax tey jërëjëf. Gone Diouf euh, dafa melni da nga ñew ci euh, joxem gerté bi li nan la démé fi waaw dama ñew ci joxem gerté mi mais ci bi joxem gerté mi dé wax dëgg yalla jàmm rek lañ fi gis ma sha Allah hmm. ñong koy joxe normal amul xulo amul xex hmm. waaw ah ñu jox ñuko nak ci jàmm ñu ñaan yalla bu ñu jiwé yalla ma ñu musax ci jàmm salam hmm. yow da ngay da ngay bay waaw man nak mom duma bay man duma may bay way nak dama am ku may bayal kon am nga tol dal waaw amna tol dal amu tol mais ki may dogal tool chaque année moom moo may bàyyi. waaw. jiw bi euh, dégg naa am na ñoo xam dañuy jël di jaayaat de. ah waaw loolu mën naa ne waaye man de man sama bopp laa xam man de jaayatuma wax dëgg ma cee xam dara moom ma topp sama jëmi bopp jaayu moom ni ñuy jox euh, jiw bi naka la ñu xamee ne ñii dañuy bay ba ñu jox leen ah loolu nag moom na xëy na ñu muy jox jiwu ci koñam xëy na moom xool na ba xam ne ñu xëy na ay baykat la ñu jox leen ko euh, lan la ñuy joxe saako bi ñaata la saako gerte la joxe saako cinquante kilos mm-hmm. waaw di ko joxee ñëwoon ci jël euh, gerte gi. waaw nu mu demee jël nga ba pare. Mhm. ñaata lañu ko joxe. ah. daal bi nekk juróom benn na. Mhm. ngay bay. waaw. Mhm. Euh, noo ko gisee est-ce que njoxin bi jaar na yoon. ne Sénégal de xam nga ne mu neexee buur moom xam nga ne li muy def ak baadool li ñuy doxal du bokk benn hmm. c'est-à-dire ah, maanaam ni ñuy doxalee ngay jox di ko di ko loo di ko dijjanti teg ci ne ko mu war a doon parce que baykat moom na nga ko war jox lu moom ba bay ba doyal mais doo ko jox lu xaalis du ko benn njëriñ hmm. maanaam jigéen ñi kese jigéen di jëli sa ko xam ngay jaal Hmm. jaay mbir mi kay du pour jaay jiw du si dañ ko joxe dañ koy joxe dañ koy xam ko dox waaw euh, da nga ñëwoon ci jëlum njiw bi. damaa ñëw ci jëlum mhm. mais baykat jox ñu dañ koy jox ñu na koy jaay ci suuf jiw baykat yee tax ñuy wax dañuy recenser ñuy bay fii ñun ñëpp a xamante ne man koy jox ñuy bay baykat yee tax mu jóg waaw. yow da ngay bay yow. man damay bay. jox am nga walaamu amoo. kilos la ndaw te du yoon bay cinquante kilos ah te man may bay deux cent cinquante kilos wala trois cent ñu may naka la ñu tànnee ñi ñuy jox ñi ñuy jox jiw yi. dañ leen a mu leen neex a yow nuñ la tànnee yow. man man moom xam na ne damay bay. ah waaw kon kay ñeneen ñuy jël xam nañ lañuy ñuy bay. non non. am ñoo ko xam ne bay ñu tey dañ leen a jël tànn yaa ma neex la. Ah, loolu loo ko xamee. dëkk ci koñ bi xam nu mu demee xam ñin koy jox te bay ñun ñëpp dëkk bi ñun ñëpp a xamante waaw ñun ñëpp a xamante ñii dem tool xam nañ leen ñi dul dem tool xam nañ leen ñii dañ leen koy jox ñuy jaay ñii di tegate jërëjëf